xalifa bu yeesu tarixati tijaaniya sëriñ Mbay Si Mansour ci bésu gàmmu gi teew na ci jëmmam jàkkaarloog ay taalibe yoo xam ne ñu ngi bàyyi ko ci daayira yu bari bàyyi ko ci réew mi fukki waxtu ak ñaar ba mu jotee ci bëccëg gi këram mbooloo mu bari song nañ ko ngir def seen ab siyaar tàngoor wi ak mbooloo mi taxul ba xalif bi ni dafay génn janlook ñi nga xam ni moo leen tax a jóg Jolof ba Kébémer jaaree ko ca Sokone Waalo cees ak Dakar walla sax Kaolack ba république islamique ba Mauritanie daayira yëpp teew nañu. lépp loo xam ne lii ma nga woon ca Mawlaay Cheikh El Hadj Abdoulaye Sy nekk ca sunu waajur Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ak njabootu Cheikh Seydi Hadj yi fi jaar yëpp. lu waay daan am ci ñooñu jàkkaarloog Seydi Ababacar mii taamuloo loolu waaye demal nga seet sa bopp waaye lépp fa tabaarakallahu mi ngi ci moom ne kon ñi sant yàlla nee nag di jotal ziyaaru mbooloo mi yëpp di waxtu wi ki nga xam ni moo fi wut al amin taamu ngir weccanteeg taalibe yi ci ab bataaxal boo xamante ni si kenn dootu ko fàtte fees dell ak dëgg yàlla dafa ni su fekkee ni nangu gi ngeen ma nangul dëgg la ci yéen bala ma koy gëm ngeen nekk benn nekk ay jaam nekkit ay bokk bokk yaa ngi moo gën a rafet ku ne nga lim ko mu mel na nit ñi dañoo daje waaye ànduñu te kat ànd nag yàlla moom la bëgg ànd bi yàlla ñu waxoon ni bu ngeen dajee waalo waalo dana ca ne jolof-jolof dana ca ne séeréer dana ca ne lébu dana ca ne dana ca waaye yooyu yëpp yàlla nee na jël leen ko ngeen teg ko fële te nekk benn jëmm ci xalaat ak ci pas di ay jaami yàlla diiru nag li ñu toog fii kenn ku ci ne ka nga dendal waroon ngaa waxtaan ak moom ba bu gàmmu gi tasee mu gane si la yow nga gane ko wallahi nee daje bi kat loolu mu wax léegi loolu la war a jur ci nit ku woyof toroxlu mën a wàcce boppam teewul xalifa bu yees wi génn na ngir janloog taalibe yi ci ab rendez boo xam ni bëgg na mu sax bu ko fi yàlla yàggale